lu sànq ñu bàyyi ko mu nuyoo moom ak euh, ki nga xamante ni moom mooy Diop Decroix euh, di suñu euh, papa mais également di suñu alors voilà tey exposition bi référentiel bi le projet naka nga ko gisee en tant que koo xam ne dafay yëngu ci wàllu eh, secteur privé. Ah. alors gis waaw ah, non damay tooñ nag c'est bon man maa war a fay. waaw lu am solo la. xam nga Sénégal dañoo war sax chaque six mois. donc ah, ñu def lu mel nii léegi lii man li ma ci gën a neex yàgg naa ko wax dama ne Sénégal depuis indépendance ba léegi dañuy am ay programme yoo xam ne cinq ans dix ans lay durer wala gouvernement bi koy taxawal da ngay gis ne durée de temps bi mu ko mën a doxalee du ko ko mën a doxalee parce que comme mën nga ne Abdoulaye président Wade bi mu ñëwee deux mille su ne woon Sénégal deux mille vingt cinq lu mën a nekk la waaye moom mënu ko fi xaar ndax agem mais ñii nag dama gis ci ñoom. loo xam ne nii benn duo boo xam ne nii bu leen yàlla dimbalee ba euh, lii sénégalais yi yaakaar ci ñoom danañ ko mën a réaliser te niñ koy réaliser rek mooy comme ni ñu wax rek fexe ba nit ñi yokk fexe tamit ba nga xam ne ni secteur privé bi dana jiitu ndax loo jàppale secteur privé bitim réew bu mu lu metti metti dañuy dellu seen réew bi Covid bi amee sénégalais yi ñëw génne seen xaalis bi mbënn mi amee sénégalais yi ñoo génne seen xaalis di jàppalante ci lu ndaw ci lu mag kon tey jii ñoom niñ waxee ne lu ñuy def dañ ciy jiital secteur privé lu am solo la beneen bi ci des mooy civisme ak bi ñu ci dugal boo xam ne nii sénégalais yëpp dañ ko war a def gis nga xale yi dañoo war a commencer ci école bi def ko mag ñi tamit ku ko ci deful nga dem formation bu ndaw xam say valeur xam sa lépp pour gën a mën a réew mi mën a développer parce que plan yomb na waaye exécuter ko bi mooy li jafe mooy li américain yi di wax just do it tant que defoo ko rek day mel ne defoo dara. jàpp nga ne am na différence entre PSE bi ak projet bi ñu présenté. français lu baax. lu baax ay na différence ak dañ koo copier dañ koo def nii dañ def yëpp loolu amul sens xam nga lan moo am sens ndax lii baax na ci Sénégal ndax ci PSE la jóge ndax ci France la jógee ndax ci feneen la jógee baax na ci Sénégal ñun gis nañ ko secteur privé baax na nañ ko continuer rek roy lu baax wàññiwul dara voilà. merci voilà. Euh, monsieur Mboup euh, nga xamante ni euh, moom moo nekkoon nekk homme d'affaires et opérateur économique également di monsieur Serigne Mboup da nga ñu gis voilà mu yëkkati ay kàddoom daal di koy wax ci par rapport ak événement bi en tant que koo xamante ni voilà dafay yëngu ci secteur privé bi mais également koo xamante ni homme d'affaires la di faral di wax xalaat sax mi nga xamante ni moom mooy gis-gisam ci réew mi voilà xam naa nag dinañu continuer. Eh, ndax maa ngi doon seen tout à l'heure ki nga xamante ni moom mooy Boubacar Camara xam naa voilà daf ma daf ma xóora ci ma jege rek dinaa ko voilà jéem a arracher quelques mots voilà di leen fàttali léegi vous êtes en direct eh, fi nga xamante ni moom mooy eh, moom mooy seen Teranga teewloo ko ne référentiel bi nga xam ni tey jii dañu fi teew en tant que kuy liggéey ak président de la république en tant que conseil spécial président war nekk ci gannaawam ci bépp liggéey mais teew fi également en tant que njiitu mouvement de doomu daara di euh, patriote du Sénégal euh, jataay bi jataay bu ñuy sant yàlla la ndax euh, le peuple sénégalais dafa fal président ci base benn programme bu mu leen jaay ba ñu nangu ni programme bi mën na suqali euh, Sénégal bi ñu ko falee moom fàttewut liñ ko falee woon dafa jox ordre première ministre am nga xam ni euh, ak njàmbaar gi mu ci def ak ñi mu àndal ci ay ministre ak i directeur ak i expert ba indi fi programme boo xam ne nii ba deux mille cinquante Sénégal ca la war a doxee nit nag boo bëggee dox il faut nga fixer fa nga jëm il faut nga fixer préférentiel pour les Sénégalais par les Sénégalais on n'a pas fait comme ñeneen ñi yenn fii ay experts dem jëli ay États-Unis des experts dem jëli des états des experts au Japon dem jëli des experts en France dem jëli des experts à Singapour mais ici on a pris des experts au Sénégal pour les Sénégalais présentation faite au Sénégal ça c'est déjà une rupture et ça loolu dañ koy rafetlu bu ñu ko defoon Paris kon xëy na yéen ñii ñëpp kenn ko fekkee bu ñu ko defoon pare xëy na doo leen def direct bii loolu rek doy na rupture ci rupture boobu nag ci la ñu ne. et je pense boo demee dans le fond du document document baa ngi nii c'est combien c'est quelques pages. boo ko ubbee rapidement nga xam li nekk ci biir nekkul loo xamante ne dañ ko defal pour euh, njiitu réewu France njiitu réew États-Unis mais dañ ko defal pour le Sénégalais lambda loolu moo tax. lii nga xamante ne moom moo nekk ci contenu bi mooy li nga xamante ne moom mooy le projet mu nekk loo xamante c'est accessible à tous les Sénégalais mais dans son dans ses propos le premier ministre am na lu mu wax lu am solo mooy que ni on ne fait jamais quelque chose sans la population parce que l'adage dit si tu fais quelque chose sans moi tu l'as fait contre moi mu ne chaque étape ci li nga xamante ne moom fu ñu jëm ça va être réalisé avec les Sénégalais et par les Sénégalais loolu ça dafa bëgg indi transparence ci nga xamante ne mooy fa ñu jëm mooy lan mooy agenda 2025 li ñu war def ci lu nga xamante moo jëm ci wàllu relever le Sénégal parce que le Sénégal est à terre comment faire pour relever le Sénégal et d'ici voilà ce qu'il faut mais yemuñ ci dans le document ñu ne na am na loo xamante ni dafa këtt na jonn ñu léegi dans le quinquennat mooy les cinq ans ce qu'on va faire xam nga loolu transparent raw ko loolu dafay wane ni véritablement ñi nga xamante ne dañ doon naan y' a pas de projet y' a pas de projet aujourd'hui jàpp naa dañuy vont dañuy dugg ci suuf paillasson bi làqu parce que amatuñu lu ñuy wax amatuñu layam layami amatul lu ñuy lay mooy que ni effectivement y' a un projet et ce projet il est déjà fiable ce projet est est, fait par les Sénégalais et pour les Sénégalais loolu moo ci am solo donc jàpp naa ne tout simplement li nga xamante ne moom lañu présenté tey comme référentiel mooy Sénégal fu mu jëm ak symbole bi ñu jël. pour matérialiser tout cela ban symbole lañ jël le baobab baobab di guy bokk na ci sunu symbole yi sunu emblème parce que tout simplement nekk na garab goo xam ne tuutiwut waaye nekkul garab goo xam ne dañ ko jàmbat léegi rek mu nga witt léegi léegi dañ ko jàmbat mu am doole mu am ay fruits ñu mun ci lekk loolu mooy deux mille cinquante jàmbat nañu tey te deux mille cinquante les générations futures vont en bénéficier parce que ñoom ñooy. après huit li nga xamante ne moom mooy les fruits ils vont récolter les fruits. comparé au plan Sénégal émergent mën a jàpp par rapport ak ces éléments de rupture. c' déjà un élément de rupture le fait de présenter le document au Sénégal c' est un élément incontournable de rupture un très bon élément. l' autre élément on l'a fait contre les Sénégalais on l'a fait avec les Sénégalais parce que le fait de je l'ai dit tout à l'heure mooy li nga xamante ni moom mooy faire quelque chose sans moi c'est faire c'est le faire c'est de le faire contre moi donc plan Sénégal bi nga xamante ne moom lañ fi nekk moom moo fi nekkoon c'était fait contre les Sénégalais ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo koy présenté woon ñoom ñëpp muy ministre muy directeur général boo demee léegi nga ne ko ban mu jox la benn axe du la ko jox parce que xamuñu ci dara parce que ce n'est pas conçu par eux mais fii le Sénégalais lambda dans trois bu ndaw bu nekk sëy na la wax lan moo nekk ci biir te également xam nañ fu ñu jëm donc loolu moo ci am solo donc ce sont des éléments de rupture mais également dans euh, la dans la transparence transparence mooy vous n'avez pas entendu de milliards déggu kenn déggu ci milliards fii quinquennat la mais dans le dans pour on n'a pas parlé de milliards alors que dans l'autre document on a parlé de milliards on est à Diamniadio ici on avait programmé 1017 milliards. Alors, où sont les 1017 milliards qui avaient été prévus ici Ensuite, on a programmé 117 milliards pour l'aménagement de Djamnyadjo. Où sont les 117 milliards qui avaient été prévus Ici, nous avons dit, nous allons le faire avec les Sénégalais. Chaque étape, chaque étape, qui faisabilité, ce sont les Sénégalais qui vont le faire. ce n'est pas le gouvernement, mais ce sont les Sénégalais. Le, le gouvernement sera là pour apporter les moyens, apporter les moyens financiers, mais également apporter les moyens matériels et juridiques pour que loolu loolu mu dox beneen rupture mooy la justice restaurer la justice redonner la justice son blason réconcilier la justice et le peuple sénégalais parce que on dit toujours la justice est faite pour le peuple et par le peuple parce que je ne crois pas à ceux qui disent que force restera à la loi. Parce que cette loi, elle est dite pour le peuple. Et pas seulement pour les justiciables, mais par, pour, par, les, par, les, par les juridictions, mais pour le peuple. Et ce peuple-là a son mot à dire. Et ce peuple-là avait sans doute à un moment donné méprisé cette justice. Le président de la République, il faut réconcilier la justice et son peuple. Mais pour ce faire, il faut nécessairement des réformes. et réforme yooyu mu ngi ci biir le document et je pense que loolu déjà lancé woon nañ et c'était pas le gouvernement seulement parce qu'on a convié des Sénégalais à la réflexion sur la nature de la justice que nous devons avoir et cette nature de justice que nous devons avoir n'a pas le peuple le, les ministres qui se sont retrouvés dans dans dans leur chambre ce n'est pas les DG qui se sont retrouvés dans leur bureau pour faire euh, pour apporter le changement c'est plutôt les Sénégalais qui se sont qui s'étaient retrouvés ici même pour apporter ñoom seen xalaat ci li nga xamante ne noonu la justice war a doxee parce que demain bu justice boobu di joxe le droit